ko ci wolof parce que ñi fi nekk ci ñi gën a bari ils vont intervenir en wolof ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci seen teewaay barat bi nga xamante tey ñëw ngeen wuyu si daje ngi nga xamante ni ay collectif yu bari yuy xeex pour mën a jëlaat seen suuf yi ñuy jéem a akimoo ñoo fi daje tey pour mun leen Euh, defal situation bi nga xamante ni moo nekk ci seen gox yi yëpp ku ci nekk ci li nga xamante ni moom la ñuy dund jëm ci ni ñuy commencé ñàkkee seeni suuf ñàkkum suuf soosu am na borom doole yoo xam ne ñii ñu ngi jóge bitim réew am na ci ay indien am na ci ay européen am na ci ay américain am na ci sax ay asiatique ay arab ku ci nekk ngi jéem a ñëw xool nan lay def bi am ci sunu suuf si li mu mën a jëriñoo li ci ñaaw nag yi ci gën a metti mooy que ni ñoom ñëpp ku ci ñëw dafay foqar suuf ni ci loxol béykat yi ci loxol askan wi béykat sax kayit yoo xamante ni dafay firndeel ni moom moom moom suuf si fekk na suuf soosu téeméeri at ci avant ñaari téeméeri at ni ci téeméeri at ay doomu réew mi ñoo ca nekkoon ci seen i maam ak seeni i maamaat di ko exploité di ko jëriñu muy sàmmkat yi muy euh, béykat yi mais tey jii ñu ci bari ñu ngi commencé ñàkk seen suuf ñàkkum suuf soosu am na ci li nga xamante ni mën nañ wax ne euh, zone bu ñuy wooyee par exemple Mbane foofu xam ngeen ni am na ngeen yu fa demoon xanaa ba léegi sax ñu ngi fa am na njaayel njaayel ki fa njëkkoon a ñëw dafa woon dafay béy jàtro fa tey jii dégg nañ ne ki ko jël mu ngi nekkoon ci wàllu petrol tudd lu mu tuddati waa ji Frank Timis bi ngeen deggoon ci affaire pétrole du Sénégal moom nee na leneen la bëgg a bay am na ñoo xamante ni itam fii ci Petite bi ak ñiy exploité zircon bi nangu nañu suuf su bari ci loxol béykat yi ci loxol sàmmkat yi bi am na ci ñoo xamante ni dañ daan béy at bi ñu am cent million ñu am dix million ñi am trente millions ñooñu tey ji ak seeni njaboot dafa mel ni ñoo ngi dugg ci tumaranke boo xamante ni kenn mënu la wax ni mu day te buñ leen dee deew dédommagé ñu jox leen 2 millions 3 millions 4 millions ndax dañuy jàpp ne dañuy dédommagé ci garab yi nga fa sampoon fekk na garab yi xëy na du moom rek moo am valeur am na fii ci Goda Xolpa fii ci côté aéroport Diass bi côté yéen ñoo xamante ni itam ñoo ngi jooy seen suuf nga dugg ci itam ci côté euh, Fatick intérieur u bassin arachidier bi am na ñoo xamante ni déggoon ko déggoon ko fi problème bu ndàngaleer bi benn sénégalais bu bari doole xëy na bari itam taxawaay taxaw na depuis trois ans day jël suuf soo xamante ni depuis mille huit cent mille cinq cent ba tey waa dëkk ba ñoo ko doon utiliser loolu itam am na ci côté Fimela nga xam ne ay Indien ñoo fa dem ne dañoo bugg a béy xorom. laaj suñu autorités yi di jox leen cinq mille hectares cinq mille hectares tey boo boolee li fa nekk ci possibilité ci littoral bi dem ci commune Fimela dem ci commune euh, Palmarin yegg commune Diofior Djilas ak Loul Sessène dafa mel ni léegi dara dootu fa des nga dem itam côté Tambacounda Kaffrine Koungheul yooyu yëpp am na jafe-jafe yoo xamante ni askan waa ngi jooy ne suñu suuf si kat ñu ngi koy nangu ci anam yoo xamante ni borom doole mooy ñëw dugg génn génn kayit kayit boo xamante ni xëy na cadastre ak impôt ñoo ko koy jox ci anam yoo xamante ni daal dëgg-dëgg kenn mënta e, ñàkk a jooy façon biñ ko jotee te e, yooyu itam bu amee kayit bi boo demee tribunal moom borom suuf si taxaw ne maa fi doon liggéey kii taxaw ne maa ko jënd wala man lañ ko jox kayit baa ngi nii yoon xëy na kayit la xam bu boobaa itam moom mooy béykat bi mooy perte sàmmkat bi mooy perte ñu ra ragal nag ni mbir yooyu buñ ko fajul ci fi mu fuñ ko war a faje mën na am mu jur loo xamante ni ci ay jafe-jafe mën na indi xeexoo mën na indi ay conflit mën na indi jàppante yu xamante ni du baax amoon nañu kaay yu ñu meloon noonu ci euh, benn dëkk euh, fii ci biir Fuuta euh, bi ñu ñàkkoon fa ay doomu aadama ndax fanaay ndax am kenn ku ñëw bëgg fa jël vingt mille donc balaa ñu yékkati nag te ñuy rey ay nit xëy na baax na ñun ñëpp ñu toog waxtaan xool mbir yooyu nuñ koy saafara ba suuf si nekk suufu senegal di jëriñ d'abord du doomu Sénégal yi balaa keneen ci jël di jot ndax rek am na doole wala am na taxawaay wala mën na dugg génn donc ñu fi nekk ñëpp dafay dañoo ñëw représenter ay collectif dañ leen di jox parole bi ku ci nekk wax li nga xamante ni moo am ci goxam ak fiñ ci toll ci xeex bi bu ñu defee nag loolu ba pare ñu def benn synthèse parce que ñoo bëgg ba ñu jógee fii tey yooyu collectif yëpp ñu préparé dajale leen am benn collectif national boo xamante ni dafay interpeller itam autorité sénégalaises yu bees yi boobu itam collectif national ñu fexe sax s'il le faut organiser benn marche national wala benn sitting national fii place de l'Obélisque benn ñi mën a dégg ne ñoo ngi artu ñoo ngi waxtaan ñoo ngi laaj ndimbal ndax xëy na buñ ko deful mën nañu yegg ci anam yoo xamante ni mooy gën a metti mooy gën a ñaaw ndax man mii xam naa ne sama mbokk pël yi ku leen bugg a xañ seen suuf fi nga xamante seen njur gi foofu la ñuy dundee foofu la ñuy sàmmee xëy na da leen di rey rek mais du yombee noonu ndengale itam lu ni mel la woon donc moo tax jafe-jafe yooyu yëpp bokk itam jafe-jafe yi nga xamante ni xew na ci littoral bi ndax géej gi Sénégal am na ci plage yoo xamante ni fii lekk Ziguinchor fii lekk Saint-Louis lu rafet la lu baax la mais mu ngi commencé tëju tey jii boo génnee Ndakaaru littoral Ndakaar yëpp tëju na am borom doole borom maxaama yu ko jël teg ko seeni loxo aaye ko doomu aadama yi ba na tey xale yu bari buñ dee nekk vacance bëgg a yegg ci plage yi duñ ko mën a def ñu dem fi nga xamante ni moo gën a dangereux looloo indi souvent ñuy dégg xale yi di lab donc yooyu yëpp moo tax daal ñu ne nañ fexe ñun ñëpp ñu toog def situation bi donc ñoo ngi leen di gërëm encore une fois dañuy bàyyi délégation yi fi nekk ku ci nekk jël parole def situation bi nga xamante ni fi mu jóge ak ñi ko délégué loolu moo fa am dama xamul na dañuy commencer waa euh, Lendeng est-ce que ñu commencer ci ñoom jox leen kàddu gi damay jóg moom mu ñëw toog fii parce que ñu bañ a bouger micro yi. Mhm. bu paree euh, ñeneen ñi itam jógee Njaxel. Mhm. ok c'est c'est Khalidou Dia euh, le vice-président des maraîchers de Lendeng et le porte-parole aussi de l'association. bon maa ngi nuyu ñuy fa fekk ñëpp euh, di sant yàlla bu baax bi ñu teewee euh, ci euh, conférence de presse bii nga xam ne dafay wax ci mbirum suuf ñun waa Lendeng aussi dañuy dund lu mel noonu ci wàllu suuf pour ko xamul Lendeng nag Lendeng dafa nekk benn zone agroécologique bu nekk ci cinquante six virgule quatre hectares. Euh, nekk ci zone bi ñuy wax Tëngéej ci Rufisque Est entre l'autoroute à péage ak la la cimenterie de Sococim foofu la Lendeng féete euh, ci biir Sénégal ñu leen di wax ne Lendeng euh, sur le plan économique plus de deux milliards de france CFA mooy capitalam par année un milliard huit cent millions donc loolu ñu ngi koy def ci chiffre d'affaires ci li nga xam ne ni moom mooy génn biir lendeng lendeng aussi ñëpp xam nañ ne ci wàllu légumes moom mooy fournir les meilleurs légumes du Sénégal mu nekk une zone agro écologique mais depuis bu yàgg nag ñu ngi jàkkoonteeg ak problème accaparement des terres parce que lendeng ëppoon na 200 hectares bool euh, bolomi foncière bi attaqué na ko ba 56 virgule 83 hectares moo fa des actuellement nag. muy autorités yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy oowee les bandits euh, fonciers ñooñu ñoo attaqué Lendeng pour jeexal ko une bonne fois pour toutes ba jamono yii ñu toll nii ay entreprise ñoo fa ñëw di fa installé ay station essence ay yeneen projet yoo xamante ne si méngoowul ak mbéy méngoowul ak agroécologie ñu ngi doon mën a combattre depuis plus de dix ans ba léegi ba président bi fi jógee euh, muy euh, son président son excellence Macky Sall demoon na ba initier ñu benn décret boo xamante ne si benn envoyé benn surculaire pour euh, interdire euh, bépp construction ci biir Lendeng maanaam Lendeng ñu def ko une zone non aedificandi Lendeng nekk une zone agroécologique loolu autorités yi Tëngéej yi ñoo ko waroon a dox ba mu nekk euh, ñu def ko document pour mu nekk benn décret pour le président de la République mën koo mais malheureusement les autorités defuñu si li nga xam ne moom lañ si waroon def ba yàlla def kii kooku jóge fi mais ñoo ngi alerter aussi di prévenir ak di euh, euh, di woo le nouveau régime euh, son excellence monsieur Bassirou jamaay Faye pour que moom kaawu lendeng bi mu jël ko moo wax et moo wax gouvernement bi ak le premier ministre ak le ministre de l' agriculture ñu àddu ci kaawu lendeng pour ñu utal ñu benn statut global ñi nga xam ne béykat yi ñi fa nekk ñu utal leen ay këyit ñu mën a euh, sécuriser Lendeng ba Lendeng nekk une zone agroécologique mu nekk une zone boo xam ne dañ fay béy parce que mbéy mi munul ànd ak ay station essence munul ànd ak yeneen construction yoo xamante ne si euh, loolu àndul ak mbéy yow ñu ngi ñaan autorités yi ñu jàppale ñu si loolu ba nga xam ne euh, Lendeng daf fay sax nekk fa njëriñ askan bi aussi bu weesoo sur la ci mbéy mi lenn dafa nekk loo xamante ni mooy le poumon vert de Rufisque benn poumon vert boobu rek moo fa des si Tëngéej donc ñuy ñaan aussi sur le plan environnemental lenn dafay représenter lu am solo ci dëkk bi donc loolu daal laa xam ne ni moo xam ne moom laa bëggoon a wax ci kaawu ci kaawu Lendeng di autorité yi nag pour ñu jàpp ci ba Lendeng mën a am benn statut global ba béykat yi mën a mucc ci euh, bandi yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a nangu Lendeng asalaamaaleykum wa waaw mbokk yi maa nuyu leen yéen ñëpp di leen gërëm man nag góor gi Sow laa tudd président collectif di Jayin mu nekk conseiller rural foofu mu nekk chef village foofu mu xam ni kaw foofu mu dundul fu loolu depuis fukki at ak ñaar dama fekk fii ñii ñii di wax fii dafa mel na dañuy dañuy jooy eh, góom man baat bu dàgg laa indi ndax lu indi loolu mooy ñun jayil 37 villages moo fa nekk ñaar fukki junni ak juróom benn la joxe ñu ni déetuwaay ñu indi sandarma ya fukki sa oto sandarma plus ambulance plus oto bu am kàcc ñu ñu dal suñu kaw ñii gaañu ci ñii ñu tij leen ñii seen loxo yàqu ci ñu gas àll ba daaneel garab yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu di ñu ñu ñu ciy dund lu mel na we rek sump yeneen yi ñu doon jëfandikoo yëpp ñu daane ba pare gas àll ba indi fa barbar boo xam ne ci ci ci ci ci xanaa guerre mondiale la doon am mais amatul sax léegi ci guerre yi rey sunuy nax yàq sunuy déeg yàq sunuy yoon gas àll baag juróomi kalel ñoo fa suux ñu dee kenn du wax te kii Abdoulaye Wade moo ko fi jëkk indi mu bëgg wootee ñu ne ko déet ñu booy ko jox ko fala aaye nekk fala fala fala woni Guinée bon ndax fa fala fala ñu jël kayit bi maa ko indi lokko lokko moom kiram boobu suubu sax dem pale mais dafa wax ba pare mu ni il faut mu dem ko j'ai dit mi nangam nangam ba mu demee foofu gisuñu dara ñun li ñu dal dalul kenn amul fenn fu mu nekk ci ci ci ci sous-région bi te ñun dafa mel na dañu nuy seetaan ndax ñun dañu dëkkul fenn village bu ne juróom fukki mètre nee nañ lañ koy bàyyee am nag am béy am kar am jàq am cimetière am am am am sunu déeg fi ñu doon nan leen sunuy nag yi daaneel garab yi ba pare ñooñu pami tampéeri ñoo ko yore woon ñu ànd ak kuñ naan góor sekk ñëw nañ fii ak góor dem nañ fii ministre yëpp dem nañu fi ñëw mais dafa mel na nun dañu war a tukku rek ndax man wax wax naa leen bu fekkee ni projet bi moo na gën nunu toog ngeen yóbbu nu feneen fekkee 37 villages yi yëpp dafay nërmeelu nun amatuñu yaakaar léegi nag lañu gis suñu kaw a yaakaar ndax léegi ñoo xam ni lii lañuy ñuy xeex Sonko ak Jomaay ñii am nañu yaakaar ndax lu mel nii la dindi te dégg naa fu ñu ko dindi booru mbuur bi dégg naa dem na fa te nun lu am lii moo ëpp loolu te nun amul fu nu demul amul fu nu jootiwul sunu doom amatuñu fu ñu dëkk ndax sax néeg sax moomoo ko fi nu te nekk tey kam nga fanaan ci Sénégal mu nekk Sénégal juróom euh, ñetti téeméeri at foofu la ñu nekk ndax yi sunu foofu lañu ñu dund ñu dindi sunu ñax ba pare indi seen ñax ñu koy jaay ñoom di yóbbu ñun amuñu ci dara ñun li nu dal li xanaa ñuy door lañu am yaakaar mel lii jàll lii boobu mu dara baaxul mu seeb naarullaay ndax nee nu ay oto sandarma rek bu ñu indee saret ñu ah, oto sandarma jaar ci kaw bu ñu indee moto ñu jaar ci kaw yàqal nu ànd ak ay sandarma di naxt suñuy gannaaw kër ñun ñu ñu nekk pour doo dugga ci ci ronu lal yi xam nga loolu du nekk jàmm xam nga pour du ndooyee noonu ñu nekk te si tey ndax moom dafa jikkee nekk fanaay falare reyee nit ñi mu ñëw fi juróomi nit la fi rey fale dañu fetlante fii dañu suux ndax dañu gas àll bi yàq yoon bi foo xamoon yoon mu nga fi yàq nañu ko amatuñu dama boo waxee léegi ñu ne waroo nekk di waroo def dispensaire waroo am ndox ndax bokkoo fi nu nekk dañuy jooy abadan amul fu nu demul dema ni dal képp ku mu dal nga mel nu nu mel nangeen ngeen ni li nu dal amul ku mu dal fii ñaar fukki junni hectare ak juróom benn nga jël ko ci foo xam ni boo taxawee fee ngay si yéen fal yi nga ni forcé mu nekk fa nun de kamu nun de joomaay ak Sonko yaakaar na ngeen ndax ñu ngi leen di siiwar ñun ñu ngi leen di siiwar te ñun il faut ñu bëgg ku nu bëgg il faut lu bëgg ku nu jëri boo nu jë boo nu jëri ñun duñu la bëgg non moom suñu bopp yaa ngeen xam ni problème bi na am ñoo ngi ci duñu teggi sunu duñu teggi ndax am ñoo xam seen seen loxo dafa ci dagg am ñoo xam di leen tij am ñoo xam ne seen tànk moo ci gaañu am na yeneen ñi gendarme ñoo leen dóor même gendarme bi am na ñu ci gaañu. ko nanaani ko wiiko haala eh, moo ko mo rewo bo munatul dem dafay jaay keneen léegi faraka simis moo ko yore faraka simis xaw ma nan ful munu ko tudd moo def foofu ñakam di ko jaay di yóbbu ñun ñu toog sunu ak sunuy nag ak fi ñu doon dund ak fi ñu dëkkoon jël ko ba mu set wecc lii kay moom lii kay moom yéen yéen xam ngeen jaaduwul lii du dagan mukk yàppkat du talaan ba faw nun duñu ci ànd ba abadan duñu ci ànd bonjour tout le monde je m'appelle docteur Mbaye Cissé je suis le président du réseau de la vallée contre l'accaparement des terres et la dégradation de l'environnement euh, nous sommes là aujourd'hui pour vous faire état de la situation de l'accaparement des terres de la spoliation et de la lapidation à grande échelle au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Vous savez que la vallée du fleuve Sénégal a toujours été considérée comme le grenier du Sénégal depuis la convention de Ndiaw signée entre le BRAC et euh, l'administration coloniale, n'est-ce pas, qui voulait faire en tout cas la vallée du fleuve Sénégal, le grenier du Sénégal. Mais jusqu'à présent, depuis des décennies et des décennies, on n'a pas encore réussi en tout cas d'être, de faire la vallée du fleuve Sénégal, le grenier du, Sénégal, à cause de l'accaparement à grande échelle des terres de, de, de, de cette zone. Pour l'économie des moyens, nous avons énormément de multinationales et d'agrobusiness dans cette zone qui utilisent à la fois les eaux du lac, mais également qui spolient la terre des, des communautés. Ne serait-ce que pour la compagnie sucrière sénégalaise, cette multinationale est à 26 000 hectares.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 en collaboration notoire avec les autorités compétentes et les autorités décentralisées de la police judiciaire qui est là-bas au niveau de la vallée, qui euh, lapide les populations pour s'octroyer, pour s'approprier en tout cas de leur, de leur terre cultivable et de leur terre arable. La, la, la, la Swame Agri et Rabi Faki actuellement veut s'approprier des 1700 hectares que l'ancien conseil avait octroyé à, à son père vers les années 80 à titre de droit de propriété. Mais actuellement, ils se donnent les moins pour prendre cette terre cultivable et le vendre à, à Sénéguindian. Ce que les communautés ne vont pas accepter, c'est dans la zone de Mban. Mais le symbole de la spoliation des terres actuellement au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, c'est les terres, c'est les 26 000 hectares et les, les 26 000 hectares achetés dans une situation nébuleuse, dans une gestion nébuleuse par African Agriculture de Frank Timis. Parce que si vous vous souvenez, ce dossier a débuté à, à Fanaï en 2011. Le président Abdoulaye Wade les avait octroyés 20 000 hectares. Il y a eu deux morts. Les populations de Fanaï ont dit niet. Le président Macky Sall, entre les deux tours, le président Abdoulaye Wade les a octroyé les terres au niveau de la zone, de, la zone Ndiaël notamment la commune de la commune de, de Ronk, la commune de Nid et la commune de Diama sur les 20 000 hectares. mais entre les deux entre les deux tours c'est entre les deux que le président de la République les a octroyé ces terres après l'avènement du président Macky Sall le président Macky Sall les a réaffectés ces 20 000 hectares vous avez toujours entendu l'entreprise Senhuile qui avait euh, qui avait dans le cadre de leur contrat prévu de produire de tournesol mais pendant 12 années elle n'a produit aucune production de tournesol elle a produit du maïs du riz Elle a loué les terres cultivables aux populations. Donc, c'était une gestion tout à fait nébuleuse jusqu'à ce qu'on qu entend qu'un bon jour, que les 20 000 hectares ont été achetés dans, dans une situation très nébuleuse par African Agriculture de Frank Timis. Après Seine-Huile, c'est autour des fermes de la Teranga. Je vous rappelle ici que les fermes de la Teranga, dont on parle toujours, les fermes de la Teranga, n'est qu'une prête-nom de African Agriculture de Frank Timis. moi, en tant que président du réseau de la vallée contre l'accaparement des terres, j'avais déposé en 2022 une plainte au niveau de l'OFNAC pour fraude, corruption, spéculation sur la tête de la personne, en tout cas du nom de Gorosek, qui est l'administrateur des fermes de la Teranga. Et les fermes de la Teranga, je vous rappelle, c'est l'entreprise qui est, c'est une entreprise écran, une entreprise prête nom de Franck Timis. Actuellement, on nous parle qu'elle est, qu est de la luzerne. Et pire encore, la presse américaine Bloomberg, lorsqu'il était venu actuellement au Sénégal au mois de juillet, elle m'a interviewé, je lui ai donné les, les, informations nécessaires. Elle est partie sur le terrain, elle a trouvé encore plus, plus, plus, encore plus grave. Au-delà de la cession illégale et de la gestion nébuleuse des 26 000 hectares au détriment de la population, elle a trouvé l'utilisation abusive des eaux du lac de guerre par African Agriculture et, et l'entreprise euh, Bloomberg avait déclaré bientôt les grandes villes vont être déchaissées. Récemment, j'ai déposé sur la table du, ministre, du Premier ministre un dossier béton lui faisant état toute la situation globale de la spoliation des terres au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Parce que dans le cadre du programme du président Bassirou Diomaye Faye, il, il a, on, on, il, le président fait état de la promotion de l'agriculture, de la, de, de, de, la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire, n'est-ce pas Et de la souveraineté de l'agriculture. Moi, je pense que ce programme ne va pas réussir si on ne vide pas les contentieux fonciers qui se trouvent au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, notamment dans le département de Daganam. Le président de la République et son premier ministre, on les lance un appel solennel pour qu'ils descendent sur le terrain. Gorgui Sow l'a dit tout à l'heure. Ce qui se passe dans la vallée du fleuve Sénégal n'est qu'une petite portion. N est, n ce qui se passe actuellement au Sénégal n'est qu'une petite portion de ce qui, se passe, ce qui se passe au niveau de la vallée. Là, on nous parle des 20 000 hectares, des vingt 000 hectares, des 1700 hectares. Et actuellement, et actuellement, il y a des multinationales qui, sur la base de ce programme qu'a lancé le président Diomaye Faye, l'agriculture et la souveraineté alimentaire, veut collaborer en catimini avec les multinationales, avec en tout cas ces ministères, pour développer, en tout cas pour réussir l'agriculture, c'est que les communautés et que nous, nous n'allons pas Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko doivent avoir les informations vérifiées et vérifiables l'éventuelle collaboration en tout cas de ces multinationales qui sont en train de côtoyer ces ministres pour réussir l'agriculture. Donc après, ils vont le laisser avec un contentieux foncier avec les communautés, ce que nous dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Je parler en Wolof. Oui. Wow.